beneen ponk ci biir xibaar yi Ousmane Samb lañu ñu tàbb njiital conseil régional bu Ndakaaru nag mu wutu fa rek kii ku nekk léegi ministre des sports te roppi fa sax Ousmane euh, Badiane nag ñamal vote bi tey jile Ousmane Samb ci micro Aïssatou Anta Touré ak Pape Samb. ci fal bi ñu ma fal tey euh, di gërëm aussi tous les conseillers de la région yi nekk ci biir région de Dakar parce que fii ci région de Dakar. tendance ak parti amu fi. donc euh, ñi fi nekk ñëpp ay nit la yoo xam ne ku ci nekk mënoon nga diriger conseil régional bi Ousmane Badiane wax na ko fan yi passé ñu donc voté voté bi xaw na gudd. dëgg yàlla parce que ñi bëggoon xaw na bari juróom-ñaar la ñu woon mais yàlla def na yëpp jaar na ci jàmm ak salaam donc voté nañu ba confier ma seen confiance ma yaakaar ne donc léegi li ci des rek moo ñu jublu ci liggéey bi. boole ñi fi nekk ñëpp def ko ci transparence def ko ci probité pour que vraiment ñu am une certaine visibilité ci liggéey bi ñuy liggéey liggéey bi ñuy def nag dafa nekk du mandat bu bu ñuy yeggale la mandat bi comme ni ngeen ko xamee docteur El Hadji Malick moo ko yoroon nekkoon président du conseil régional euh, nekkoon président conseil régional te léegi mu occupé wu ci ministère des sports mu nekk loo xam ne ñaari liggéey yooyu mënul ànd loolu moo tax mu dem ñu war a terminer mandat bi bu ngeen seetee bu baax li des at ak genn wàll la at ak genn wàll bi ci des nag dinañ ci xar suñu tànku tubéy pour luñ ci war a def pour conseil bi jëm kanam pour que pour le développement de la région dinañ ko def incha allah